mu laaj ko ne ko yow fóore ji soppiliku ji mu ne ko moo fóore ji kulli yow mënoo fi sha'nin day jaaxal na ma mu sëgg rek sanuut wuyuwu ko wuyuwu ko am ngàcce lool ndax kulli yow mënoo fi sha'nin rek bépp bés fu mooy fi sha'nin mi ngi ci mbir nan la nekk ci mbir ak man mbir la ak fu muy mbir ak lu tax mbir a jóg kullu yawmin huwa fi sha'nin rek dem ah dana jaaxal ku ne di mu saggoot am jaaxle lool tëdd ba mu tëddee yabtadiihaa shu'uunun ay mbir yoo xam ni yubdiihaa te dañ ko feeñal danañ ko feeñal nun yàlla waaye laa fi shu'uunin di caa gën mbir yoo xam ni yabtadiihaa danañ ko sos lu ma war a sos sos naa ko bu yàgg lu ma war a def def naa ko heure baa jot ak waxtu wala la génn waaye du lu may sosaat ba mu ba sëñ ba yeewoo del si ci daara ji waaja del si soppali ko war jëmm ne ko masama loolu laaj jëmm loo ci xam mu ne ko man kat gàggantiku naa kulinu fi sheenin shuunun yubdiha laa fi shuunin yubtadiha mu ne ko salli ala man alamaka ba waaj a tontu rek xadir ni ko jullil ci la ko ci ki la ko xamal xam naa ne xamaloo ko sabab Muhammad la ko xamal gaañu ñooy gaañu ñooy waaja mu ni nag yemoog yàlla gi mooy nguuram wàcc gi mu wàcc mooy xéewalam boo déggee réewu yàlla mooy njëggalam boo déggee soppam mooy ngërëmam boo déggee kanamam mooy ama gimaam rek mi dee fi boo déggee loxoom mooy tabam boo déggee jëmma bëtam mooy seedi lépp dara mënu ko ump may nag ma yàlla yàlla doolu xéewal nag ak mucc ci gën jaa teddi dëgg dëgg nit te mooy muhammad tey mbellitu sew sewi ngëm ala ashrul xaqaiq al insaniya wa maadini daqaiq al imaniya kookana al mutaxalliqi kadi aji jikkowoo bi ala rutubil abadiya ci mu gën jaa màggi jaam gis nga yàlla muhammad subhaana alladi asra bi abdihi la ko wax njaam mun ne mun ne mu di lu ko neex sayidina yaxya mu ni wa sayidan wa xasooran wa nabiyan min alsaalihin kii almutaxalliqi bi ala rutubi al ubudiyya ganjaa kawe darajay jaam moom mu nekk jaam moo ko gën lépp moom muhammad moo tax yàlla subhaana alladi asra bi abdihi kii mu ne wa sayidan wa xasooran wa nabiyan min asalihin yonent yàlla yaxyaa boo ko mayee mbaam mu ni bëgguma ndax damay nekk sangu mbaam te bëggumaa nekk sangu dara doo takk jabara mu ni déedéet kon damay nangu damay nekk sangam te bëggumaa nekk sangu dara waaye doo def commerçant ndax nga amala la mu ni soxlawu ma doo baya soxlawu ma loo koy doo def nangam mu ni damay nekk sang loola te ki ma bëgg a nekk sangam te ma bëgg mu nekk sama sang kenn la du ma boole beneen sang ak benn te mooy yàlla yàlla fa ko tege sang ga mu doon bañ ni wa sayidan wa xasooran wa nabiyan min asaalihin sang boobu nag mooy buur bi nga xam ni sang bi nga xam ni mooy soppe yàlla bu màgg ba mooy sangu doomu aadama ya mooy sellug wal sell ya ci mboolem bindeef yépp kooku mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku la lañ kooku lañ jagle nag ci tagg wu sell wa mu jóge ci sa borom tabaraka wa taala mu ne ko innaka la ala xuluqin azim foofu na alxaaji Malik wax ni laa uxsiyanna sana laa uxsiyanna sana waaw waaw waaw xaaj may nee na nerooma danañ sàkku dana al Mustafa tagg ku ñu tànn ka samay Muhammad baadama ataa ca gannaaw ba dikkee sanaawoon tagg jamilum bu la di rafet min rahmaan yak min allahi mu tukkee ci yàlla foofu baxru tawil la mu tagg ci Muhammad fii muy baxru basit mu tagg ci Muhammad laa uxsiyanna dunu tagg sanaa duñu takk sanaa tagg alayka ci yow anta yow kama xat asbayta naka tajal nafsi ba fa yàllaahu yàlla xoolal mu ni alayka anta kama rabbi ala nafsi qad asnayta tagg googu duñu bañ mu jëm ci sàmba bañ mu jëm ci mademba tagg gi yàlla tagg muhammad yàllaa ko jëkk a tagg ni ku wa innaka la ala xuluqin azimin kon kon kenn bokku ca xaaji Malik nee na nag comme yàllaa la jëkk a tagg yow muhammad ku taggati it ci tagg yàlla la taggee kon ku la tagg yàlla tagg na la ku la taggul yàlla tagg na la foofu nag taggu yàlla googu te mooy mu yàlla mu tege ko muhammad mu ne kon nag faxdur lana wali man min baynina nasabun min jihati tiini aw fi diine yàllaaw naa përisiloo ci tagg gi nag xam ne yàlla fu mu taggee muhammad tagg wa loo fa doxale loolu suubaale ko mu ne kon fax fu yéen na nga jéggal lanaa ñeelnu wali man ak képp koo xam ni min baynina nekk na suñu diggante nasabun askan waaye ma ne wa ko ci kat min jihati tiini koo xam ni ñoo bokk tiin di doomu ndey wala bokk maam wala mamaat wala mamarki aw fi diini wala nga naan ashadu an laa ilaaha illallah may wax ashadu an laa ilaaha yàllaahu yàlla may nag tagg wu rafet woowu yàlla tagg ko Muhammad lu tax ci lii nag moom Muhammad la làmbaayoo mboolem yonent yi ko jiitu woon ku ca nekk mu tànn ci yow la mu ko gën a jël ak la mu am la mu tànn lan la xalqa aadama mu tànn bind ga tànn maarifata siis xam-xamu yonte yàlla siis ba shajaata noox ak jàmbaaru noox xulata ibrahima ak xaatoog ibrahima wa lisaana ismaila ak lammuñu ismail fa tabarakallahu ndax moo jëkk a wax arab wa riba isxaqa ak ngërëmu isxaqa wa fasaxata saalix ak am fasaxa saalix wa xikmata loot ak xam-xamu xikam ci loot wa bushra yaqooba ak dëggalu yaqooba wa shiddata muusa ak dëggalu yonte yàlla muusa wa sabra ayooba ak muñu yonte yàlla ayooba wa taata yunus ak topp yunus wa jihaada yoosha ak jihaatu yoosha wa sowna daawooda ak ñongu daawooda wa xubba daan yaal ak topp daan yaal wa yawaqaari iyaasa ak ragub iyaas wa isbata yaxya ak mucc yaxya wa suuda isa ak dëddu isa wa axni suuhu nag ñuy nuural ko ci axlaaqi nabiyiina ci jikko yonent yooyu yëpp Muhammad gardaañoo lépp moo tax mu gën ñëpp du seen morom fii nag ci li la gaañu profité nag xeet wu nekk lu ko ba nga ko tuddee rab wu nekk lu ko ba nga ko tuddee bokkul ak sa morom ma ni nañ aljanna lu ñu tuddee Muhammad Abdul Karim jaamoo ji tedd ji ñooñ safara lu ñu tuddee yàlla lu ñu tuddee Muhammad Abdul Jabbar ñu ne arash ñu tudde Muhammad Abdul Hamid mboolem malaayka yi tudde ko Abdul Majid mboolem lambiyaa yi tudde ko Abdul Wahab mboolem seytaane yi tudde ko Abdul Qahar mboolem jinne yi tudde ko Abdul Rahim mboolem doj yi tudde ko Abdul Khaliq mboolem géej yi tudde ko Abdul Qadir mboolem jéeri ji tudde ko Abdul Muhaymin mboolem jën yi jën yi tudde ko Abdul Quddus mboolem yént yént yi tudde ko Abdul Ghiyas mboolem njeexal yi tudde ko Abdul Razaq ndeng ment yépp tudd ko Abdou Salaam bàyyi yi may yëpp tudd ko Abdou Momin gannaaw yëpp tudd ko Abdou Xafaar Abdou Xafaar tawee di ko muus muus liñ jël tudd ko Taab Taab Suxbu tudd ko Aqib Zabo tudd ko Faarox yàlla nag Taaha Yaasin moo tax xalifi ni Yaasin Taaha Aashirun wa Aqibu wa Muxtafin min jin wala ñu taaqibu sallallahu alayhi wa sallam suma xatama nag mu mottalee bii ci Muhammad arisalata yonant ga wa dilalata ak tegtal ga wal bisharata ak dëggal ga wa nidaarata ak nisër ga wa nubuwata ak nubuwa ga fan fan min xaytu annahu foofu naka moom nag ma ngay wéet di njaaxàll doonal bachar bàyyi mbindeef yëpp anal mu doon def nag xaalat rabbihil olal kabir ngir jaamu buubu màgg ba al mutakabbir te ba mu koy jaamu kat wala mu lii shuxlun shaaxil laa wala xatarun ama ali min fikri wa nazar amul benn soxla bu muy soxla woon ci adduna lu dul bu xëyee rek dem sa xuntu moom rek di jaamu yàlla foofu nag ak maanaam moomu nag la sang bi nga xam ni kenn di weranteeg moom bu dee dëkkaa werante kenn du puukaranteeg moom kenn du niru niranteeg moom mooy sang ba nga xam ni loxoom joti na dayoom kawe na mooy wéeruwaay ba mooy suñu sëriñ si ci ngëm yàlla ak lislaam mooy layu yàlla ëllëg ci mbindeef yi moom bu dee toog in qaama qaada bihi bi billah wa in qaada qaada ma allah wa in taharaka la yaqsud ila allah wa in sakana itma'anna ma allah wa in saala saala min allah wa in amila amila lillah wa in ata axada min yadillah jamiu shuunihi min allahi wa ila allahi wa fi llahi wa billah moom daal bu dee jublu yàlla lay jublu bu dee dal dal la jëm ci yàlla bu dee laaj mi ngi laaj lu tukkee fi yàlla bu dee jëfandiku mi ngi jëfandiku ngir yàlla bu dee joxe mi ngi joxe ngir yàlla bu dee jàppit mi ngi jàpp ngir yàlla mboolem mbiram yépp mi ngi mi ngi tukkee ci yàlla jëm ci yàlla ne ci biir yàlla jëmaat ci yàlla rek xaajimaay léppam yàlla la kooku daal almushaaru ilayhi bil banaan mooy kañuy joxoñ baax baaraam naan waajaangee yàlla ko joxoñ baaraam indi del arifaani moo mooy xam ñépp fil birdi wa suudaan فكان الحاج مالك بن عثمان تابع عليه الرحمن مني من بعد الطائن ولا من ثم ستة أشهر رعاك انفلاق في الحل بيهم لو تك من بعد طائن ولا من ثم ستة أشهر رعاك انفلاق في الحل بيهم xëy na loolu am nag fi yowmi lisnayni ci bésub altine fi seedi ci weer wa almuaddami ba di bu ñu màggal te mooy weeru koor kañ la fukki fan ak juróom-ñaar yoo xam ni saba achara xalat mi ramadan fukki at ah ak juróom-ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci la commencé loolee aha ismada ba wéyee nag ashuruuna ñaar fukk min amami ci jamono li ibrawise هرمز ضمن كسرى الوشروعان ملك ملك فرس ومعنى المظفر هو الذي مزق كتاب الله وكما قتل تيرب يلما وكان يكون محمد بدءا تجدك على حب الخلائي تصف جيت اي خلوة لك الى ان جاء بدك بدك روح القدس روح جبريل روح القدس جبريل في الغير تغار حراء لم ينم تبابا يلول ruuxul qudsi nag mooy ruuxul muqaddas rek almutaharu min adnaasi bashariya wa huwa jibril alayhi salaam aha nee na nag wa fi xabari ma yutla annahu salla alayhi wa sallam kaanat ida xadat isalaatu xaraja ila shiari makka wa xaraja maa ali bna abi talib mustaxfiyan min abihi abi talib wa min jami amaamihi wa saa'iri qawmi yusalli an salawat fiha fa ida amsaya rajaha فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا ثم إن ثم أن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به قال أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما قرب الأيام الوحي حبب إليه خلوته فكان يحتج في غار حراء آه. وتعبده قيل بذكر وقيل بفكر وتعبد قبل النبوة كان بشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام نينا صلى الله عليه وسلم بجبل جل مثلا جبت رك دنا جن جم ci xoru makka genn ànd ak ali ibn abi talib mu nëbb nag bàyyam abi talib ak mbooleem bàyyi taxam ak nit ñépp nag mu nëbb ndeysaan di julli ca ca xuntuma aha bu xëyee ba ngoon jot mu dellu di ko def di ko def ba benn bés bàyyib Abaa Taalib yër ko nag muy julli mu ni Muhammad yëpp na ak yow sama doomu mbokk mi maa haada diinu ladi araaka tadayuni bi moo jan diine laa gis nga ñëw fi di baru di ko diine woo mu ni wax haada diinullahi wa diinu malaikatihi wa diinu rusulihi wa diinu abiri ibrahima alayhi salatu wasalaam jii diine daal diine yàlla la di diine malaakaam di diine yonantam di diine sunu baay ibrahima alayhi salaatu wasalaam ñu ni waaw ndax diine joojule mu ber woon di su wéetal yàlla wéetal ga lan la jaamu ga jaamu ga lan la wa taabudu xiila bi zikar wa xiila bil fikar ñi ni kat jaamu ga jaamu tudd yàlla la woon ñi ni déedéet kat jaamu ga jaamu jaamu xalam la wa taabudu qabla nubuwati kaane bi cheikh ibrahima alayhi salaatu wasalaam moo tax moo da waxaat ni tawaxasha qabla alwaxyi qaanata rabbihi walam yulhi an ilahi shughulu ataana wa yad'una ila diini jumlatan faman yujib da'wahu fa huwa dalilu tawaxasha njaaluna muhammad qabla alwaxyi ci dëkk waxyu ja qaanat rabbihi muy jaama boroomam walam yulhihi te soxlaalu ko shughulu ay soxla an ilahi walis yàlla atana dikkale nu ma muhammad waya doonaa mu woolu ila diini jëm ci diina jumetul ñun ñëpp Maodo nee na fa ma nuy jikkuuyuwul dawaa woote Muhammad foofu moom kat zalilu aju torox la waaw diina ji mu doon ji mu doon jaamu muy bàyyi Ibrahima alayhi salaatu wasalaam diina jooju ni mu deme woon mu ni mooy li yàlla wax ni wattabiya millata Ibrahima xanifan na nga topp yow Muhammad sa diine ba Ibrahima mi nga xam ni jàng na ci lépp lu dul noona ay shariatuhu wa man ittibaau nabi ittibaauhu fi l usuli way aqaidu tawxid aha toppug Muhammad gi mu topp diine Ibrahima alayhi salatu wasalaam toppug cosaan la ak lépp li pas pasu tawxid ndax fa rasulullahi umira bi ittibaai man taqaddamuhu min al anbiyaai fi tawxidi ndax li annahum almustarikuna fii قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين واما تخصيص المولى هؤلاء المذكورين بذكري فانهم أكابر الأنبياء وأولي العزم وأصحاب الشرائع المعظمة المجددة وكان كل من هؤلاء الرسل له شرع جديد وأما من أعداه من الرسل إنما كان يبعث بالتبليغ الشرع من قبله فمن بين نوح وإبراهيم بعث بتبليغ شرع إبراهيم وهود وصالح بعث بتبليغ شرع نوح ومن بين إبراهيم وموسى بعثوا بتبليغ شرع إبراهيم وكذلك من بين موسى وعيسى بعثوا بتبليغ شرع موسى jagle gi yàlla jagle tudd ñii ni sharaa yoonal na lakum ñeele ne diini maa la nga xam ni waste dénke na bii ca diina ja nooxan yoon ci la noox wala di la nga xam ni aw aw xëy naa woo ñu noonu léegi ci yow wa maa nga xam ne waste naa dénke nanu bii ca moom ibrahima ibrahima wa muusee ak muusee wa isa ak isa lu ma wax ni ak lu ma wax ak ma yu saxal ak diine diine du tax nag aaya ji mu tudd ibrahima tudd muusa tudd isa tudd noox su tudd ja ca def te yonent yi di alfuqa tadin téeméeri junni yonent ak ñaar fukk ak ñeent ñoom la yàlla yónni ñoo ñoo ñoo yonent yi mu fab ñetti téeméer ak fukk ak ñeent yónni leen ñooñu ñëpp nag yàlla tudd ci noox tudd ci ibrahima tudd muusa tudd isa yàlla aqimu diin waaw soo gisee tabaraka wa taala jagle ñii ma tudd ci tudd fa yunum akaabiru anbiya yi ñoo lay mag di leen biyaaw yi wa ulul azmi ñoo ulul azmi wa ashaabu sharia ñoo boroomi sharia al muazzamati ba di bu ñu màggal al mujaddidati ba di bu ñu yeesal wa kullu min haulaai rusulu lahu shar'un jadid ñii mu lim ci sa ci aaya bi kenn ku ci nekk am nga sharia sa sharia boo xam ne sa sharia bu bees la wa ma man adaa min rusuli nag ku ñu ñoom ci yonent yi innama kaana yubaasu bi tabliigi shar'i man qablahu ñii ñëpp kenn ku nekk dañ ko wax ni na nga josal sharia ka la jëkk fa man bayna noox diggante noox wa ibrahima ibrahima bu isoo ñoom yónnee nañu leen bi tabliigi shari ibrahima wa hud wa saalix bu isaa ñu yónni ko itam bi tabliigi shari noox wa bayna ibrahima diggante ibrahima wa muuse bu isoo bi tabliigi shari ibrahima وكان من بين موسى وعيسى بعث بسبب شرع موسى وإنما لم يذكر من قبلهم لأنه لم يكن قبل نوح الأحكام مشروعة وإنما لم يذكر من قبلهم لأنهم لا- لم يكن قبل نوح أحكام مشروعة لأن آدم عليه السلام كان شرع التوحيد ومصالح الأمعاش واستمر ذلك الأمر إلى نوح فبعث الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الأدب والديانات واو بني سيد تدون آدم أنا عندي نوح عندي إبراهيم عندي موسى عندي عيسى بتقصد لين وون ديك نوح حتى ينو أمون شريعة لبو خمني توحيد له أك مصالح المعاش توحيد نغي ورا ويتل يالا أك نغي فخي بسا دوند باخ أك سا أدونا آها وصلنا الكلام إلى نوح sharaa yi boobule tawxid boobule di dox di dox ba ci noox fa baasoo laahu nag bi tahrimil ummahat ba mu ñëwee ci noox nag yàlla indi ko araamal naa nit ku takk ndeyam araamal naa nit ku takk doomam bu jigéen araamal naa ku ko bokk ndey baa nga takk ko ak lépp loo xam ni warul mu weexal ko lépp li nga xam ni mooy teggin ci diine aha wala yasa zalika nag amru yata akkadu wa yatanaasaru بالأنبياء واحدا بعد واحد وشريعة إذا شريعة حتى ختم الله بخير ملل ملتنا على لسان أكرم رسول نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما سود نك mbir ma di feddliku di dimbalante yoon ci kenn ci gannaaw kenn yoon ci gannaaw yoon ba yàlla matali lépp nag ci gën di xeet gën jiw yoon muy wan yoon mu yoon wi nga xam ni yàlla wàcce na ko ci lamañu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam فتبين بهذا أن شرعنا مع أمة محمدية أحاطت جميع الشرائع المتقدمة لقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لم قليلتكم العذاب ثم لا توصلون واتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم الآية آه مدير نمني لك الشريعة مولم قيادة محمد تيغنا مولم شريعة يب يكو جيتوون ndax yàlla nee na la ngeen dellu jëm ci seen boroom ngeen wammatu ñee seen boroom ci dëkk bu dikkale leen mbugal moo xam ni di ngeen am kàttan man koo jeñ na ngeen toppit li mu xam li moo gën a rafet ci la yàlla wàcce ci yéen foofu nag ñu ne waaw diine nag ci boppam wa xilaasu diine waaxid way na ma lixtilaafu fi furoo diine ci boppam benn la waaye nag banqaas yi rek moo wuute wa diinu lugatan maa yatadayinu bil insaanu xaqan aw baatilan diine ci dëgg dëgg dëgg dëgg mooy loo baaxoo di ko def toujours waaye loo baaxoowul doo ko def bu ñaan nga diin amoo diine moo tax yàlla ni wa man yabtaghi lislaam diinan falan yuqbala minhu wa fi laaxiri mina xaasiriin ku sàkku ne lu lislaam muy diine deefu la nangu loola nga sàkku te it ëllëg da nga pett ci yawmal xiyaam wa idaa ulima nag ci la ñu xamee ne ana diina laa budda bil ibaadati wal ubudiyati wal ubudati diine laa budda bil ibaadati wal ubudiyati wal ubudati ak jaamu xajug jaamu ak jaamu wi léegi nag ibadatu ak ubudiyatu al ubudatu mal farqu nag bayna al ibadati wal ubudiyati wal ubudati waay diggante ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu lu leen teqale ah al ibadatu alsalaatu bila gaflatin walsawmu bila gaybatin walsadaqatu bila minnatin walxajju bila iraatin walgasu bila sumaatin walitqu bila idaayatin waldikru bila malaalatin wa taati bila aafatin gaa ñi gaa ñi ibaadaat ngoog julli bañ a sàggan woor bañ a jëw sarxe bañ a ñaax aj màkka bañ caa def ngistal jihaad bañ wut ndéggatal góoreel jaam bañ koo lor tudd yàlla te doo yokkat mboolem topp yi nga di ko topp te du am benn gàkk-gàkk kooku mooy ibaadatu gaa ñi ibaadatu ngoog al ubudatu nag moo desa arriba bila qusumatin wa sabru bila shikayatin wal yaqinu bila shubhatin wa shuhudu bila gaybatin wal iqbalu bila rujatin wal isaanu bila qatiatin gaa ñi ubudatu ngoog arriba gërëm yàlla bila qusumatin nag gërëm yàlla waaye nag xultoog xuloog nangam nangam ak subuuxan maag fu ne dugg naa faag loolu def naa koog nangam nangam ak ah yaa ngi saali loolu la ñu bañ dañu bëgg nag nga gërëm yàlla bañ a xuloo muñ bañ a tawat wóolu bañ a lëntal seede bañ a fàddu jublu bañ a dellu jokk bañ a dog gaa ñu kooku mooy amoo def amal ibaadatu nag ibaadatu ashurin fukk la moom waññi leen fa salaatu wa zakaatu wa sawmu wal xajju wa qiraatu qur'aani wa dikraa fi kulli xiin wa talabu alxalaali والقيام بحقوق المسلمين وحقوق الصحبة والتاسع لام للمعروف ونهي عن المنكر. gaañi kooku nag mooy ibaad والعاشر اتباع السنة ومفتاح السعادة وأمات محبتها كما قال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله nee na fukk la julli génn asaka woor aj jàngal Quraan tudd yàlla ci bépp mbir di sàkk lu dagan di jóg ci àqu jullit yi li ñu xewle nga jóg ca dëggal sa koy àndal ànd nga di dëggu digle yiw tere lu ñu sib fukkeel ba nag mooy tëbb sunnas Muhammad wa miftaahu saadati mooy caabi texe yépp nag ndax yàlla nee na in kuntum tuhibuuna allah fattabiuni yuhbikum allah bu fekkee ne nekk ngeen di sopp yàlla na ngeen ma topp fattabiuni yuhbikum allah bu ko defee yàlla na leen sopp julli goo fukk yooyu bi ma amee nag julli googu ci boppam moom julli rek li ma doon lim moo xam ne mooy ci fukk ya julli ci jëkkoon julli li ana salaata nag ala sabata asha julli am na juróom-ñaari yëpp miftaax shiar nuur burhaan ruknu tahrim tahlim julli ci boppam am na caabi am na turki am na leer am na lay am na ponk am na lu ñu xormaal am na yooyu ma dema miftaaxuha alwuduu wa shiaaruha al adaau wa nuuruha alrukuu wa burhaanuha alsujuudu wa ruknuha altashahudu wa taxrimuha altakbiru wa taxliluha altasbix caabi julli mooy lan njàpp turkeem mooy lan